asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi <clears throat> bokk yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak yi nekk bitim réew yëpp fa ab jullit mën a ne ñoo ngi yëkkati kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen nuyu ci turu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa al kullu murit yal na fi yàgg lool te ànd ko wér di leen nuyoo fii ci barab bii nga xam ne moo di maqarul azna barab boo xam ne sëriñ Saalihu Mbàkke moo ko yëkkati woon ko ci loxol doomam doonoon ak taalibeem di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdou Lahad mu nekk fi nekkal ko fi woo fi murid yi ak jullit yëpp ñu dëkk fi ànd ak moom taxawal ci néegub yàlla bii def fi kërug sëriñ Tuubaa yi mu feggoo ak rakkam di imaami jumaa ji di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke yal na leen fi yàlla gën boole yàggal te gën a dolli seen ñu toog nag jataay bopp baaxoo na di ko woote ci turu kuréel bii nga xam ne way juróom moo ko joxoon ndigal di ak Cheikh Salih mu di Xudaamul Xadim di sàmm ndonal l'islam li nga xam ne ci la Serigne Touba Xadim Rasul daan xëy daan si gont saa yoo xam ne xew-xew am na bu jëm si ci lislaam sëriñ bi dana yëkkati kàddoom wala mu yëkkatilu lu kàddoom xam nga nag am na xew-xew ba xewaat dal ci kaw lislaam te lenn ci noonu lislaam yi yëkkati ko njëkkoon na fee am ci atam ñu tegoon ko ci mbaggum sangub sang yi di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sëriñub sunu sëriñ seexuna ahmadul xadim waaye loole ba mu fi amee xam ngeen ne am Amsatu woote woon na marche bu yaatu ci senegal gépp waaye jóge woon Mbàkke dox jëm si ci jumaay Tuubaa ji ngir naqarlu woon loola loolee fi amoon nag moo del siwaat muy kàddu yi nga xam ne noonu lislaam bu bon bi yëkkati na ko teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax sëriñ Amsatu woote waat jataay bi ci tuuru xudaamul xadim bi nga xam ne sëriñ Basiiru mbakke moom sëriñ Cheikh Coro moom Cheikh Mahamadou Lamine moo ko jiite ñu fas yéene yëkkate ay kàddu jëme ko ci képp koo xam ne ñoog yow ñoo bokk pas-pas ci lislaam wala ñoog yow ñoo bokk pas-pas ci yoonu murit képp koo xamante ne bii ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di woote ngir taxawal lislaam bu la fekkoon na saxaaba yi defoon da nga ko def te mooy jaayanteeg moom jox ko alal sa alal ak sa bakkan ñooñu rek moo tax ñoo tax sëriñ am satu woote te ñooñu la sëriñ Tuubaa waxoon ne ñooy seen bàyyi ci diine loolu moo tax danañ ko jox mu ubbil ñu kàddu bi su noppee ñu jox sëriñ Gana Messere Maxtaar mu leeral ñu diggante sëriñ Tuubaa ak yonent bi ak lim ko jaraloon ak li ko yonent bi defal su noppee ñu jox ko Cheikh Ibrahima Fall làmp su noppee sëriñ ba Basiiru dana yëkkati kaddu ci turu Xudaamul Xadim su noppee sëriñ Sidi dana tëj jotaay bi kon ñu maa si déglu sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdou Lahad biir di wax wax nag ñu ko ci xew-xew bi xew bëgg dem ci France dañu yoroon mois boo xam ne gannaaw ndigal li dañoo waxoon ni noo wax ashadu an laa ilaha illa allah nekk ay jullit waxoon ni kon lépp luy defar diine sañ nañ caa am waaye lépp lu ko yàq sañ nañ caa wax waxaat aslamtu nafsi suñu digal sëriñ kon lépp luy defar yoon itam war nañ caa waaye lépp lu ko yàq war nañ yoon donte Sénégal ci citoyen bokk ci réew mi kon lépp lu yàq war nañ caa wax waaye lu koy defar war nañ caa jóg nag tey loo xam day yàq diine di yàq réew mi te ki ko def tudd Macron Macron nag daa daa damaa dañ ko xare ci wa Macron Macron jooju wala xëy na moo tax muy def pexe yii ngir bëgg yàq diine waaye mënu ko ndax leeru yàlla neexut a ci ci sa ci gim wala amat ci ma noor wala wu kasal kaaf wala wu kasal kaaf kon nag ñu ngi koy naqarlu fa naqarlu yem mbooloo maa nañ ko wote mu fees del waaye jiru ko góor du wét góor du du wét surtout ma di julli yaakaar Sëñ Tuubaa kon wër su wét waaye su doonte wetu wetoon naa itam boo wetli koo gis sëñ si di mi ci sama wet damay rafet njox dalum xel ndax suñ ñaari waajur ñoo àndoon diirum ñaar fukki at ak lu ko jiitu kii yor diin ji ki yor adduna ji ak di fay ak lu yàq moo tax mu tekki mu tekki tànkam kon su ñëwee fii damay rafet njort ak xel mu dal ci ni lii nuy fexe fexe mii fexe du am incha allah rafet naa ci njort nag ne du ànd kon nag wax ji duggul xam naa li li li liñ ci yokk rek yoon daa tënku ci kilifa sëñ Muntaxa mooy suñu kilifa ñun ñëpp waaye lu ñaaw kenn du ko àgg kilifa caricature bi ñu def yonte bi kenn waru ko àgg kilifa audio yi ngay dégg di ko wax sëriñ kenn waru ko kenn waru ko kenn kenn waru ko àgg ndax fi mu toll ci at ak ni mu gëmee sëñ Tuubaa ni mu fonki diine ku ko wax mën na koo yóbbee lor joo xam ne dara jël ko ci àdduna comme nag mooy suñu kilifa di suñu mag te joxoon ndigal moo tax dañ koy wutu ci lépp kon ñoo ko wutu ci lii ndax moo ko waroon def te mënu ko waaye nun mën nan ko moom lan ko defal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ni seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam yëpp màggale ko ànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba bi yëpp ak mboolem kilifa diine yëpp. di leen ziyaara bu baax di jégalu ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanam kilifa yu baax yi ñu nekk muy Serigne Xamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir waaye Serigne Bachirou Mbacke mu Serigne Cheikh Thioro ci jataay bu am solo bi nga xam ne dégg ngeen ni ko Serigne Fallou Galas ubbee liy sabab bi di lenn rek muy jëf yu ñaaw yoo xam ne dañ koo jëme ci sangu sang yi di Moustapha sallallahu alayhi wa moomu nga xam ne moo taxoon Serigne Touba jël léppam jeexal ko ci moom moo waraloon ay guddeem ak i bëccëgam lépp mu jeexal ko ci moom jëloon bindam géppit jeexal ko ci di sant boroomam waaye di ko liggéeyal moom kooku yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag bu ay kaddu jëmee ca moom walay jëf sëriñ bi day bañ ku ko jege ak ku ko laal looloo taxoon léppam mu jaay ko jox ko ko mu sallallahu alayhi wa ba muy wax ne samay kër gent na sama njaboot tàggoo nañ li ma ko yóbbee mooy tagg ko moom sallallahu alayhi te li tax ma di ko tagg mooy bëgg ko rek kon defe naa moom rek daana taxaw di yëkkati aw turam daana taxaw di ko kañ daana taxaw di ko tagg ba jël léppam jox ko desewul dara jumlatu maali wal midaadi wal xalam hadiyatun lil Mustafa baabi naam kon amul dara lu muy desal yonent bi la jël teg ko ci kaw ñépp wane ni it moo féete ñëpp kaw ci biir ay mbindam ak i waxam sëriñ bi nag dafa am lu ci leeral loo xam ne day wone ne euh, kilifaam gu sell googu gu tedd googu di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam da ko jotale woon tey jii bakkanam ak njabootam ak léppam ki nga xam ne egg na ci wax ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan qadiman lahu muskaana di sanada kon day mel ni tey luy ñoŋal mbiram joxe na ca bakkanam mu jaral ko ko waaye jaral na ko joxe ak njabootam jaral na koy joxe daratam ndax moom ci boppam eggal na boppam ba wax ne dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daai jasadi yonent bi salaa sallam bu deretam waroon a wal joxe naa sama deret man Sëriñ Tuubaa mu wal waaye bu waroon a tawatit man maa koy woppal kon loolu wane na fam ci toll ci moom ak jox ki mu ko jox boppam ci lépp jox ko dayoo bu egg ci wax ne du ma làngandoo moom mukk mu taxaw may taxaw baa mu taxaw may toog wala mu toog ma di ko tiim waaye buñ doon làng maa moom bu ma ko séenee mu taxaw sama lex ci loolu ndëggu dàll yàllaa koy def xaddi jaxaltuhu turaaba naxlihi yaa layta nii laaxisani bi fadlihi fonk googu ma ko fonk moo tax mu wax ne bu ma àndoon ak moom di dox moom sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne jëyi ab tànkam jëmee ko ci ak dégg wala jiit war koo fet wala jaan war koo mat nee na du ma dandal dégg damay daw rek jël bu lex dëpp ko ca kaw dégg rasulullahi jogge ca beneen lex ba jàll kon na kooku xaddil wiqaayatu rijil mujjataba min shawkatin wa ma yudaha aqraba kon loolu day wane fa mu tegoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la defoon wéttalam ci léppam moom la defoon moom la bëggoon ba nga xam ne amul dara lu muy bëgg li ñuy wax ne xol nit dana bëgg alal wala nga bëgg dara sëñ Tuubaa nag moom bi man bi xubbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeyla fàtte woon na lépp ngir rasul la am na ci mag ñi ku ko doon tagg ko xam ne ba mu koy leeral dane ko sa xol bii de lépp faru na ci du doom du dara te li ko far mooy bëgg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam azaba xalbuka xubbul xabbi yaa sanada fa xubba xibbika yamxu wa xubbakal walada loolu kenn ci mag ñu baax ñi ko toppoon moo ko doon leeral lool sëriñ bi nag dafa am fu mu teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nu cëndee ñaari baat rek loo xam ne wane woon na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat amul kenn koo xam ne mel na ni moom wala nuuru la ko dafa wax ne muhammadun waharat jaharan siyaadatuhu mu ne yonente bi sallallahu ak sangoom ak jiitoom ak kaweem dafa leer nañ li kulli xalqin zuhuru shamsi wal xamar ni ab jant ne fang leer bañ ku ko gis xam ne jant la ku gis weer xam ne lii weer la nee na noonu la ngëneelu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñe mu ne nag kon fan la nit bi sikki sàkka ci ne yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ki kawe adduna bi yëpp leen kaw mu ne mooy ki nga xam ne it ki koy natt ci kenn mooy dof bi gën a gàtt am xel suñ Tuubaa ne na buñ la doon laajloo ab dof nee na seetal ki nga xam ne day natt kenn ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam jàpp ne moom la ndowol mu ne billahi lam yaati walaysa yaati misal na abdullahi fil ayati giñ naa ci yàlla ne mës ta ñëw te du ñëw ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wallahi lam yaati wa laysa yaati xalq ko mit la sayidi saadaati giñ naa ci yàlla ne mës la ñëw sang bu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag day wane rek fi mu ko teg ci aw melo ak sopp gi mu ko sopp mu waxit ne man shakka fi taqdimihi fa jaahilun wa xaafilun wa jaahilun wa wa zaahilun képp koo xam ne sikk sàkk na ci jiitu gii rasulullah jiitu ba kawe ñëpp fa jaahilun da ngaa réer waaye da ngaa sàggan waaye da ngaa alku waaye da ngaa yàqu man sàkk fii kaw libna abdallahi muhammadin nuru wala fallahi ku sikk sàkk ne rasulullahi gi mooy leeru bindee fi nee na kooku ab dof rek la man laa yara ahmadana xayra wara foofu sax fa su shaqaim qalbuhuma nuwira nee na képp koo xam ne gisul jiitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekk gën gi mindeef nee na ab xolam xol bu lëndëm la bu alku kon nag Serigne Touba fii la tegoon kilifaam gi te kenn ku ne ci noonu ku laaloon Serigne bi mu jaral la sa bakkan jaral la sa alal ndax ni mu def rasulullahi lañ ko def kon nag kilifaam tey moom la ñëpp moom lañ laal te kilifa ak Serigne mooy kilifa ak ñëpp ndax moom la yoroon yàlla jiital ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa waxoon ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal nit ñi buñ bëggee ma bëgg leen nañ la topp rek kon bëggeelu rasulullahi gën ko topp gën koy topp mooy bëggeelu yàlla ci noonu kon nag képp koo xam ne ab jullit nga lii naqari na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon képp ko gis ci ñett mooy benn boo ko mënee wax na nga ko wax moo tax du def nii boo ko mënee jëf na nga ko jëf moo tax ña jëf te bàyyi seeni alal di ko def ña jëf ca di ko xeex di ko def boo ko mënut amuloo kàttan gi sa kàddu mënta jàllit mu naqar loola ca biiru xol ñett yooyu la rasulullahi waxoon. noonu nag boole na ñett yëpp mooy naqari nanu ñu di ko wax ngir sëriñ bi naqar nañ lu ñu ca mën ci jëf di ko def naqar nañ ñun fas ko ci boole ñaan ak di ko naqarlu kon nag loolu sëñ baa ngi koy wax ñëpp ñu di ko bàyyi xel xam ne rasulullahi daal mooy kenn gu mag bi mooy mbaar mi moom la ñu laal képp ku dib julli di wax ashhadu la ilaha illa rawati na ci weeram wi nga xam ne fu ne ña ngi ko fay tàntal ña ngay communiqué ku ne ngay woote naan mawlidu nabi nañ xam ne kooku lañ jam tey kooku lañ laal jullit bu nekk am na lu ko ca war mu jóge ko ci taxaw ko ci ndax buñ xooloon ne badar ña ko doon joxe booba dara taxawut ñu joxe seen i seen i deret moo doon wal ci lislaam ci seeni dara la taxawee te kuréel bu néew la ñu woon te tey jii xéewal gi nu wër wet gu ne barkeb rasulullahi moom la ko ko waral kon nag rasulullahi la ñu laal te ab saay-saay bu taxawee laal sa kilifa dan nga koy won ne ko ki laal waroo koo laal te mooy sayidil xal loolu moo ne may jàmmi tey may na ko jàmmi ëllëg na ndax intixaamul ilahi dana fa dana waral di dal ci mbirum laal koog yàlla te mooy rasulullahi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain bokk yi ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci ndawam la Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nu ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Maulana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala wa ardaahu sunu jataayu tay bii nag jataayu naqarlu la ginnaaw bu nu jiitalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy di nuyu sunu kilifa gu baax gi sëriñ Hamsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad te goog mbokkam mu baax mii di sunu sëriñ di Cheikh Sidil Muxtaar moom seex Abdoul Xaadir Mbàkke radiyallahu taala anhu li nu dajale fiiru dara lu dul gis ngeen ci image yi ak réseaux sociaux yi ŋàññi gi nga xam ne France ak ña jiite ñu ngi koy ŋàññi ki yàlla jiital ci adduna gënal ko ci lépp min noori yi kullu noorin saatihin bi sana nooru nujum wa nooru samsi wal kooku nga xam ne lépp luy dox ci dara jaam ak barkeem ak màggaayam ca lay dox moom la France di caricaturé di ko sabooti di ko yëjj te moom moo waxoon ne sama saxaaba yi bu leen leen yëjj yonent bi bu waxee ne bu kenn ŋàññi samay saxaaba kon moom nuñ ko war a def Musaylamatul Kazzab ma ko doon diir mbagg di ko wax lu bon ba ko sëñ Tubaa di raddu dafa dal ci kawam dalin woo xam ne mooy li muy def tey zalla muzaylamatu ayna jaara man fi samaai wal ardi laa yu jaara zillata man wastal wala taqawata wa baala huryaanan wa jahran darata zalla muzaylamatu ayna jaara musaylamatu torox na toroxtaane goo xam ne man fi samaay wal ardi laa yu jaara dafa diir mbagg koo xam ne asamaan ak suuf moroomam nekku ci Macron dafa diir koo xam ne asamaan ak suuf moroomam nekku ci muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man fi samaay wal ardi la yu jaara zillata man wastal zillata man wastal mala taqawata wa baala huryaanan wa jaharan darata dafa dem ba ci digg mbooloo ma moom mu say lamatu sëñ tubaay bind de ne mu def mu simmi fa yaramam def yaramu neen ba ne dung ba na ko dayam jure woon ngelawal ba ñëpp dégg ko ngelawal xam ngeen li ma leen di wax sëñ tubaay wax de ngelawal ba ñëpp dégg ko mu dem fa sëñ ma bàjji Njaay jël loxoom teg ci gémmiñam ne ko Mbàkke ndeke sa xalima dana bind lu mel nii mu ne ko ku xamul sama war may sàng ba doo xam sama war may xalima kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi wax ne laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmaina kenn ci yéen du gëm li fekk dama ko gënal ndayam gënal ko bàyyam sëñ Tuubaa ne juttu lool yow ma bi ruuhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam jotoon naa la sëñ Mor Anta Sali jotoo naa la soxna Jaara jotoo naa la Mouhamadul Fadil ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Abdou Khadir ak Abdoul Ahad ñoom ñëpp sacrifié naa leen ngir am la yow kooku la ñuy fontoo tey kon li li ci taxawaayu jullit bi rawatina ku yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moom la waaji ne woon dama dégg ne da bëgg guro mu ne lu fi guro la génn kër gi luñ ma askale ne moom laa bëgg loolu yonent bi sallallahu loolu du lu wér yonent bi rek la la bëgg sëñ Modou Xarifa ñag ne na defar na defar na kat café wala ataaya def ci suukar di ko di ko jàmb ba muy liddiku ne ma wax ci samam xel ne bàjjo ak bëgg suukar mu ne ko Modou Xari mu ne ko Mbàkke mu ne lu moo ci taxawaayub jullit lan France am waa ji sëñ bi lëngoo neex na waaye ko demee mu dem ko bàyyi mu dem ak mbaggam fi ne buñ jàppee ne dañuy dund kenn nuy dundul ko dul yàlla rek nu ngi xeeb suñu bopp Serigne tubaa bi muy défendre lii di ko xeex gënoon na fay wéet moom képp kot rek dong nu génn ko ci dëkkam maanaam teqale ko ko njabootam yóbbu ko juróom-ñaari ak yu manqué tuuti mu leen di wax ni yonent salaa salaam lay liggéeyal te ku ci kawam ma daal ci kaw bi mu demee ba nga xam ne léegi nooy na neex na bëri na ñun ñi li ñu war a def mooy bu bu jàpp na kenn nanu yor ku sëñ Tuba yàlla sëñ Tuba moo nu yor moo nuy sagal ñoo ñuy dundal kon nañ boycotté mbooleem lu France am ba baa muy dellu ginnaaw ci li mu def ndax lu ñaaw la am jullit ñëpp ci àdduna bépp a koy ñaaw waa kër sëñ Tuubaa gépp a ngi koy ñaaw looloo waral jataay bii sang yu baax yi toog mbooleem lu France am rek ku dib ko ko yaa kër sëñ Tuubaa bay ko côté wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ñëpp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax daanaka nuyoo bi dañ koy dugal ci kilifa yi jëkk yëkkati seen kàddu ñu ngi soxee suñu kàddu fi sëriñ làmp fi mu daanelee te mooy li waral jotaay man nga ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidna Omar dafa wax ni nahnu xawmun aazana allahu bil islam fa ida talabna al isata bi xayrihi kunna azalla xawm nee na ñun ñoo gënoon a ci àddina suñu borom teralanu lislaam saa soo xamee ni wan nañ ginnaaw li ñu yàlla terale kon ñu dellu bi askan wa gën a torox te wa ma aataakum ar fa xusuuhu wa ma nahakum anhu fantahu ci alquran lépp lu leen yonent bi andil na ngeen ko jàpp lu leen andilul na ngeen ca maandu te it wax ni li fi yëg a ngi digle lu baax di tere lu bon yéen a ngi gën waaye nag saa su ngeen noppee digle lu baax noppee tere lu bon ne leen wóor ni ñëpp leen gën kuntum xayra ummatin uxrajat linnaasi ta'muruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar maanaam alxukmu taduru maa al illa wujudan wa adama saa suñ noppee digle lu baax noppee tere lu bon rek ñoo yées ñëpp kon xuk suñ diglewu suñ diglewu suñ lu bon rek xukmu bi day nekk marfu day dégagé wu maanaam dañuy yées ñëpp kon lii nga xam ni moo xew tey jii nga xam ni euh, am na benn waykat saahir boo xam ni kambu dafa ŋaññoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni képp koo gis na ko rey mu muy wër ci mbedd madinatul munawara sahaaba yi di ko wër ba mujj def xasi xasida googu baanat suaadun fa xalbil yowma matbulu mutayyamun israha lam yufda makbulu wa ma suaadun xadaatul bayni israhalu illa aganum xadidu tarfi makhulu ba fi mu àggee ci inna rasula la la sayfum yustadaau bihi muhammadun min sayfillahi maslul nee na yonente bi képp ku ko laal rek da nga xam ne yaa ngi mooma ndax dañ lay tëkku doo baaxle ci lenn kon kii nga xam ni mooy ngañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam lenn rek lañ ko mën a def mu yëg ko ndax ñun amuñu kàttan amuñu doole mooy def ko na ko iranien yi defoon ndax bi ñu def ay accord ci wàllu économie bi protocole Iran bi accès daal ni ñu teg euh, seen plate sàngara yi dañoo wax ni ñun ay jullit lañ duñ jëfandikoo sàngara protocole Macron nii bi ñu accès dañoo wax ni euh, loolu du mën a nekk duñ ko fi mën a jële ñoom ñu daan ni kon nañ nañ nañ nañ dagg mboolem accord yi nga xam ni bëggoon nañ ko ndax xam nañ ni seen intérêt moo ci ne ñoom ñoom dañoo libre ci am mën a jëfandikoo am nañ man a mën nañoo dem ak seen bopp ba tax na ñoom ñu arrêté lañ ne kon daan kon nañ fi jëlee sàngara si ñu seen seen i kon nag ñoom alal lañuy ñuy jaamu mooy seen yàlla seen alal yi mboolem jëfin nekk ci réew mii muy Air France ak Total ak Auchan ak mboolem seen i koom yu nekk ci réew mi képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allahu association xuddaamul xadim ñi ngi sàkku ci yow ngeen wan leen ginnaaw ndax ñoon noonu dong lañ mën a ànd def lépp lu ñuy xeex yàlla dimbaluñ ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aoudu billahi min alcheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim mbokki julli di mbokki taalibe yi waa kër cheikhul xadim ñoo ngi leen di nuyoo fii ci ëtt bu sell ëtt bu màgg ëtt boo xamee ni mi ngi bokk ci ëtt cheikhul xadim yi al maqarul asna tur am solo woo xamee ni euh, jar na dëkk fi ndax tur wi jóge ci kilifa gu màgg Cheikh Saalihu Mbakke ñëw ci Cheikh Abdul Ahad jaar euh, ci sëriñ Hamzatu Mbakke moom Cheikh Abdul Ahad Mbakke di jàmbaar joo xamee ni sëñ bi ko ñor ay yëngutoom ak dalam lépp man la ma ci xam mooy sëriñ bi ki dem ma am tali bu toogal muy wax ak Saalihu Mbakke naan ko ko bëkkalul bàyyi yaa ko gën eh, bàyyi ndax eh, sa wéyju fu muy yëngutóore mbaa ñu dégg kàddoom rek ci Cheikhul Khadim moo tax waaye mu feggam ak rakkam léppam sëriñ eh, Sidi Ahmed Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbakke xeertu kenn ku nekk xam moom it xam-xamam yéeneem pëstéefam taxawaay nitam ci yoon wi ñuy euh, di yëkkati kàddu ci seen digal ñoom ñi ñi nga xamee ni ñoom ñu jiite daaira wala jamaaya wala association bi nga xamee ni moo tudd xuddaamul xaddiim xuddaamul xaddiim nag ci lii lañ koy séentoo mooy liggéeyal cheikhul xaddiim waaye boo ne cheikhul xaddiim euh, tey nag dañoo laal jëwriñam ja ki nga xamee ni mooy ki gën a màgg lépp gën a màgg ñëpp di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sëriñub cheikhul xadim euh, sëriñub cheikhul xadim bi nga xamee ni ci la doon wax naan wasilati wa matlabi wa munyati daani wa jannati wa junnati wa buxyati sayidina muhammadin afdali man mada wa man yaati wa man fida zaman kooku Euh, la cheikhul xadim waxoon ne ko juttu lahu lyawma bi ruuxi walbadan wa walidi wa walidaya fi laalam kooku moom la waxoon daa ne xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi kooku ku màgg kooku yi ku tedd kooku yi nga xamee ni lépp lu jag tey mooma tey bundee dund nii mooma ay noon yoo xamee ni xamuñu dara di dox ak seeni bakkan ak seeni caaxaan daal di dal ci ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa kooku nag eh, buñ dalee ci moom daayira bii dana jóg di xuddaamul xadim waaye dana ko jóg ànd koog bépp kuréel boo xamee ni mu ngi mel ni moom di dox li muy dox ci biir Touba waaye ci biir senegal ak ci biir adduna bépp nga xamee ni ñoo ñooñu défendre l'islam moo leen ñor euh, ba tax na ñoo ngi woote di yëgle itam ñépp ne lii kat ñu def am njaaxum la lii ñuy def lu rëy la loo xamee ne ñëpp ci war a jóg ñépp àndandoo bokk ndey bokk baay xeexal lislaam xeexal rasulullahi ndax kooku kat teraanga ji ñu am mooma ndax la xad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula Euh, ci ñi ngi tolloon ci ci teraanga ji nga xamee ni suñ borom defal nañu ko ñun ñi nga xamee ni ñooy njabootu lislaam ci bi yàlla yónnee ki gën ci mbindeef yépp muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy wax daane laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula muy yenent boo xamee ni Euh, dañoo ëmbal yërmande waaye itam sun borom digal nañu kooku mooy ki nga xamee ni képp ku ko waggar te fonk ko gëm ko topp ko euh, say mbir yëpp dana jage ci moom jëm ci man kon nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñoo ko bokk mboolem jullit yëpp ba tax na fépp foo xamee ni ab jullit ma nga fa moo xamee ni fii ci biir Touba ak ci biir réew mi ak ci bitim réew ñépp dañoo war a àndandoo nekk benn loxo boole seen doole lépp fas yéenee taxawal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ce am benn complexe benn ragal wala dara ñu royee ko ci suñ jàmbaar ja Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ca nam ko waxe ci maanaa man de su ma ragalee dama xamul man may kan ndax sama waajur dañ koo fexeel a fexeel ba mënuñu dara ci moom ci laa soo a gane àdduna kon nag man su ma dee ab ragal mbaa may hésité ci lenn ma kon man xamatoo man Abdoulahat may kan waaye itam ñun murid yëpp ci lañ dugg dañ Tuubaa dañ koo fexeel fexeel ba mënuñu dara ci moom daal di del siwaat soog a jébbalu nekk taalibe sëñ Bamba mu nanguñ sunug taalibe te kooku nag ki mu teg ci mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gën a euh, foor moom kon nag képp koo xamee ni ab murit la képp koo xamee ab julit la lii war na ko naqarlu taxaw lii nga xamee ni noon bu mag boo bii nekk jiite France ñu naan ko Macron xoma wayam kuróol wayam kurullahu waa atta na boppam sax incha lii muy fexe du dem comme ko ñoom ñoo mën a dajee ñoom ñi nga xam ay noon lañ julit yi nañu dajaloo nekk benn te ñu bàyyi seen naayif gi nekke nooy bopp ba ñu dugg seen biir di leen jaxase ñoom ñëpp dañoo war a nekk benn ndax yàlla jàngal nañu ko waatasimu bi hablillahi jamia wala tafarraqu kon ñun ñëpp benn lañ war a doon lépp ñoo ko bokk diine ji lépp lu ñuy xeex lépp luy lislaam euh, ñoo ko moom kon dañoo war a ànd nekk benn taxaw bu baax a baax lii nag képp koo xam ab julit la képp koo xam ne ni day woote ne rasulullahi mooy sab sëriñ ba bëgg nga ko ci lenn sa alal sa bakkan sa dara waru koo fekkee jóg nag fas yéene taxaw défendre lépp ba tax na ñoo ngi woo mboolem association yi moo xam fii ci biir dëkk bi leen di Touba wala biti dëkk bi di Sénégal ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi ak mboolem kuy jullit ni ko mboolem réew yi yëpp naqarloo fii la gën a jaadoo fii ci kër Cheikhul Khadim moom mooy xadimul Moustapha. Mhm. xadimul Moustapha nag kenn dong laa gis mu tudd ko ba gën caa siiw muy Serigne Touba nii. Mhm. kon nag lépp lu ñu wax ci sàngam boobee mhm. ñun war nañoo jaay sun lépp sun dara waru ko fekkee jóg nag fas yéenee saafara loolu. comme nag euh, euh, euh, ci jëf lañ ko war a saafara mbaa ci wax mbaa ci yéene. benn bu nekk danañ cee def suñ kemt lay kattan lii nga xamee nag moom la Serigne Saliou wax ci niñ mën a xeexe lépp loo xamee ni ba France ma nga ca di ab produit wam mbaa lu mën a doon comme ni ko nit ñuy defee loolu fii la war a njëkk ñu taxaw ca kon nag lii mooy déclaration bi nga xamee ni moom la xuddaamul xaddiim bi nga xam ne liggéeyal cheikhul xaddiim liggéeyal rasulullah ak l'islam moo ko tax a jóg lii la jógoon doon ko annoncé di naqar lu baax a baax ndax lépp lu dal ci yonente bi ñun waruñu ci xaar kenn te ñëpp lañu séentu loolu moo taxoon ñu woote woon daan ni war nañoo def benn annonce benn déclaration boo xamee ni nag day jëm ci képp koo xamee ni ŋàññi na surtout Macron mi nga xamee ni jóg na caricature rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu sang te ñoom bu ñu bëggoon jàmm man mënoon nañoo jël seen maam mbaa ñu jël seen bàyyi caricature ko ah benn problème du ci am waaye sangub jàmbur kilifag jàmbur sëriñub jàmbur nga jël di ko caricature ak melokaan bon boo xamee ni ah eh, jégg na dayoo kooku nag foofu la tooñ mën a nekk tey itam ah tooñ moom ku ko def faw suñ borom dana la fayul moom waaw kon nag kàddu yaa ngi noonu lépp lu ci jub loolu lañ bëggoon a wax lu ci dëng nag ñu xam ne nii ci matadi doomu aadama la di jégalu ñëpp di sant ñëpp di wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baraax di leen baraax di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke alxalifatu am di taif al muridiya ataala allahu baqaahu di nuyu sëriñ Amsa ñi nga xam ne moo waral jataay bi di ko ndokkeel bu baax ci jataay bi mu wote di nuyu mboolem ñu jëm ci nga xam ne ñooy ñooy xuddaamul xadim di leen sant bu baax a baax ci seen jotaay bi di ci am mbégte bu baax a baax doon loo xam ne ñu ngi ko doon séntu fan yi yëpp ndax xew-xew bi amee bi professeur boobu di Fatick defoon boobu te am benn spécimen boo ne ñëw fekk fa muy génne mu dajeeg moom nga def ko loolu mu ko def muy yoo ne jullit yëpp waaye mbokkum jullit moo xam ne du naar sax ñu volontaire dem fekk wax na sax ki ko ko wan da koo fay fay ndax moom xamu ko waaye xolam boobu la jam moo tax ma def loolee ñu yaakaar ne foofa lay yem nga xam ne mooy njiitu réewum France di Macron ñu yaakaar ne da koy ñaawlu ci lam def moom mu rafetlu lam def xam ne lu lu war a am la dañ ko war di caricature dañ ko war def ci dañ ko war def sallallahu am defee loolu nag ñu déglu addu fépp nag waaye moom it Erdogan taxaw ci taxawaay bu rafet mboolem réew yi naa yaa ngi fi waaye ñëpp dañ ne ñëpp mu dal ci kawam xam leen ne nag kii sax jotoo xam ne ab daa xel mi daa matut ca wax na dëgg itam nag ndax lu toll ni li nekk ci lu ñoom dana am leen wax ñaaw ku koy wax xam na ne sam xel matut te fi mu xam sam xel matut ndax fi mu ne rëccul lool ndax jural na ko loo xam ne fii jàpputoon ne da nga egg foofu kon nag boobu ba tey ñu ngi dégg réew yu bari di def ay réaction di ko ñaawlu ñii di ko condamné ñii di ko boycotté fa nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk sax moom condamné nañ ko waaye ñoom neen duñ egg duñ egg ci boycotté ñoom loolu mooy mbirum jikkoy naar kon nag loolu amee kii nga xam ne mooy jóorinam Seexul Xadiim réew mi mu nekk loolu am fa ñu dégg ci dëkk bi ay activistes yoo xam ne ñu ngi ci yëngu boobu tey ca déggun woon lu bokk ci yoon wi yëngu ci loolu bu ngeen wootee lii daal di sonk daal baax jàpp nañ ne Sëriñ Tuubaa xam daal di cant baax ndax lislaam kat fu mu ko a jame sëriñ bi moo ci taxaw wala njabootam. dara bi sama di ba ci jafe-jafe ak xat-xat gis ngeen lettre yi ñu bindoon suñ ngir bëgg mu dimbal leen hmm. kon nag ngeen taxawee taxawaay bi hmm. sëriñ bi xolam dana sedd ci lii ngeen jëf hmm. ndax sëriñ bi moom loolu wax rek dami wa léppam da koo def jox ñeneen kon nag ñu ñëpp suñ def googu lan dugg kon nag war na noo jaral suñu bakkan suñu deret kon nag ngeen ci ndokkee ci lii ngeen def bu baax a baax imaam Khomeini mu ngi dégg jamono yi bi mu defee sawar islamiya yi xam ko booba Sénégal moom Irak la àndal sëñ Buxaari léegi ko xam ne dara bu baax booba nag bët bu set rajo bi rek ñu ne Khomeini ne rey na téeméer wala ñaar téeméer wala ñett téeméer ndax sëñ Buxaari nar ko ci lool nag ah ab jullit ko rey moo koy ni waaye bis ba Salman Rushdie defee loolu mu def ba imaam Khomeini def fatwa ba ne koo gis ray ko naa la jox nangam milliard mm-hmm. kenn la sëñ Xaadim ne xumay ne ku baax la danga kon wax dëgg dara du <laughs> loolu moo waral bi mu génnee lu mu wax ci ko ñaanal ci xatwa googu ma defoon rek saay ma mm-hmm. kon nag loolu mm, loolu la mm-hmm. ab jullit war na laa naqari loo ci man itam ci feeñal naqar war nga ko Mm, occidentaux yi nag ñoom ñëpp a yem moom. Mm-hmm. Macron day dof feeñal li feeñal li nekk xoom waaye ñëpp a yem. Mm-hmm. noonu lañ bañee lislaam noonu lañ koy xeexe mm-hmm. te danoo egg ci jabar suñu na sax ndax seen problème mooy lislaam day yokk ci seen réew bu baax a baax France ñi nga naan fii nangamat julli yooyu ma looloo tax su ne ñu tiit nag di wax lu lu lu ne te te julli yi dafa nekk dama fa dëkk leen dara ndax ceeceñ boobu rëy waay de hmm. français la kon kooku moom français la ñu bu doon am naa sax wala africain ñu ñu wax la leen hmm, hmm. kon nag loolu mooy seen jafe-jafe kon nag mm, nii ngeen def ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax donte nag li leen malal bëriwut waaye nag maxat ma gandi ba ba leen ba anglais yi nekkee Inde ci sonal leen ci mënul leen dara moom daa xëy xëy rek ne lu jógee Angleterre nag ko noonu rek la xeexal ñoom génn wut géej génn wut bal génn fetal képp loolu sëñ rek ne ko bàyyi daal di dem ci réew moom ñuy béy bitin mu koy sol dégg ñëpp ñooy ñu sol loolu loolu ci la def ba am indépendance ci France kon nag ñun anam gi mën a bëri ñun dal ci ci wet googu rek ndax ñoom ñoo ëpp doole ci wet nag waaye nag buñ tam nag réew mi nga xam ne réewum Sénégal c'est quatre-vingt-quinze pour cent la ñuy wax ne julli waaye ëpp na ko mm-hmm. au moins boog condamnation boo xam ne day officiel ci état mm-hmm. te booba tey ñu ngi koy déglu ci dégguñ ko mm. loolu nag danañ ko sàkk bu baax ci ñi nga xam ne ñooy jiite dëkk bi mm-hmm. ndax lépp lu del yonent bi lu wax bi sala yonent bi da ko wàññi dara la bi du misl Mustafa Muhammad sëran waa jaaram si bera yassamali ba dee ba ci mu xul xadama foxo kuy paxawa kawe na ñëpp te kenn mënu ko ayibal tam nag loo ko wax rek loolu daa nekk ci kaw waaye moom ñëw ci moom kon nag kenn du ko wàññi dara ko wax lu lu lu nekk lu lu baax rek mooy ko kon nag waaye teewul nag kuy ab julit nag buñ ko waxee dara war war nga ko naqarlu naqarlu googu nag la ca gën a yow mooy nga condamné ko xam ne loolu jubut ci ka ko def itam nga yaa wax ko nag li nga def du yoon mm-hmm. loolu nag war na julli ñëpp mm-hmm. war na réew mépp mm-hmm. kon nag ñu leen ndokkal yi ñëpp di leen sant ci jëf ngeen jëf son xol sedd na ci baax ñu ngi sant sëriñ am sax nii rek la sëriñ Tuubaa moom ginnaaw ko waxee am na loo xam ne kilifa mënu ko defal boppam. fii du ko joxe ndigal. waaye nag na day leer la bu ko déggee xolam dana sedd. te ku bëgg Serigne Touba itam xol dana sedd ci loolu. Mm-hmm. kon nag ñu ngi di gërëm mm-hmm. baax yéen ñi nga xam ne yéen a yor liggéey bii nag mm-hmm. ngeen gën cee taxaw bu baax a baax. ndax agression yi bari na wax ji ñaaw ji bari na reewaane gi bari surtout ci résultats yi. Mm-hmm. te loolu lépp nag. Mm-hmm. ginnaaw ñun amuñu ko fajal. Mm-hmm. am na ci loo xam nag ñoo koy jëm a fajal suñu bopp. jërë ngeen jëf. wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu.